nga ne feebar yi da ngay faj yëpp ba mu des. ba mu des sida dama koy faj. nangu nga ne sidaat mën nañ ko faj waaye. wala non sida nga man su ma waxee. parce que man bu mag mu toog fii nga ah, toog. waaw xam nga sida moom nee na mën na faj sida ah. nangu nga loolu nangu nga man sida su ma waxee dëgg dama ko xamul dama koy dégg rek lu ma xamul nag mënu koo faj. waaw mais ni nga def ba xam nit musta ñëw tamit tamit dama dama sida. ah nit musta ñëw ci. nit si man dama sida xam ma sida kon du ma wax dama koy faj. si ma koo ñaanal loo si def boo waxee mën naa ko waxoo dëgg waaye mbooleen li ma la wax fii rek jaar na fa ak doomu aadama non dinañ ñëw ci feebar yi benn par benn mhm. dinañ ci ñëw ci feebar benn mais dama bëgg ñu ñëw ci jinne yi ngay wax nii mhm. Mhm. parce que sëñ bi man naw naa sa xam-xam naw naa sa xalaat sa waxtaan leer na te dal na xel waaye sa morom yi sa naataangoo yi euh, bokk na ci ñu stressé sénégalais yi bokk nañ ci ñu ñu sonal lool loo wax ñu ne jinne la wala ñu ne la raba la ko def mhm. da gis jigéen bu nga xam ne mënul sax am doom mhm. ñu ne la rabala ko def fekk na sa butitu njurukaay ba moo yàqu mhm. loolu phénomène boobu lan nga ci mën a wax yow waaw xam nga tey damay faral dax nit su amul xam-xam wala muy nattale lu ko neex lay wax waaye ñun danoo jombante di wax loo xam ne ñun xamuñu ko lu ñu xamul te naan xamuñu nit bu ñëwee ci ñun su fekkee dafa feebar bu dee rab moo ko def ñun bu ñu xoolee dinañ ko xam bu dee ngelaw seetaan dinañ ko xam bu dee tamit da ko judduwaale dinañ ko xam bu dee boutique juddukaay moo yàqu tamit dañ koy xam su fekkee ne rab la ndax tey par exemple am na ñoo xam ne bi ñuy sëy seen soxna sax rab mooy sëy parce que fan yii am na ku ma ku ma ci doon jëflanteel. Mm. nee na fi mu doon bu bu jëlee nga baal ma si kàddu bi sëy soxnaam rab bi da koy fes dugal boppam. rab da koy. da koy fel dugal boppam <coughs> dugal bosom. te loolu fi mu doon boo koy wax ko ku dund danaa lii mënta te lii nit moo moom la daal mu ñëw sama ma dindil ko ko ñaanal naa fi nit koo xam ne saa yu masaan yor oto dem day gis rab bi toog ci wetam bi mu ñëwee si man dama koo dindi hmm? rab ku ne amul tamit waxoo dëgg wala boog da ngay xale rab ñaar dafa am am na ñoo xam ne moo tax gàllaaj baax mos laay baax rab mooy jinne quoi jinne ngay wax ni non bokkul jinne ak rab bokkul la mooy différence jinne wa maa xalaqtu jinne wala insi illaa li ya'budoon alxuraan da koy indi yàlla moom dama bind nit ak jinne lu dul ñu jaamu jinne lu amub cër la nit bari dañ ko fooy waaye xamuñu ko am na jinn nit am na jinn yoo xam ne dañoo jaam yàlla ba egg sa yàlla doon ay wàllu kaamil ah? comme nit ñi am na ñoo xam ne nag dañoo mel na man comme nit ñi léeg-léeg seex mën ngaa jénn bi daje koo xam ne defoo ko dara mu nangu si téléphone jaay la doole noonu mm-hmm. dëgg da nga koo gis waxtu wu ne te doomu aadama la la noonu ngay rombe fii nit koo xam ne ñun doon da ngay daje ak moom mu yëkkati àllam teral la du la wax dara bàyyi la nga dem bon nekkoon si naqar ma dimbali la noonu ngay jénn fii daje ak jinne complètement ma gis la bëgg la jox la secret na la doo ko def noonu ngay dajeeg fii dajeeg jinne baaxut muduma la wala nga dox ba fi toon yi gis am ndox moo xam ne jinne moo fa saw wala moo fa sangu nga jaar fa moo tax ñu ndox kenn du fa jaar nga jaar fa mu dugg la ngelaw wala nga toog sàggnu si sama mbokk jigéen nan ma baal mu dugg la yooyu yëpp doo am doom wala nga bëgg sëy mu jafe kon ku ne rab amut waxoo dëgg wala jinne amut waxoo dëgg waaye daa am ñu baax am ñu bon waaye benn bokku si. seen melokaan lan la nan la. waaw melokaan jinne waaw waaw mais nag jinne de am na lu ma ci xam <coughs> ah? waaye li ma ci xam waaw nga xam ne tey fi mu doon du ma toog yow di la ko wax parce que loolu du respect du cër ndax looy liggéey tur yàlla ba yàlla may la ko mm. loolu man du ma ko fooyee mm-hmm. parce que man ñu may gis ñu koy fooyee dama yaakaar ne dañuy xale mm-hmm. parce que am na loo xam ne boo ko xamee yaakaar naa doo ko wax parce que ñu mën a dimbali nit la si ittee ñu mën a dindi ni si aajal ñu mën a fegal nit lan mm-hmm. parce que lu leen yàlla indi si kenn xam yàlla ku mu indi si alxuraan jox na la cër Mm-hmm. waa léegi afa yonent bi di ñëw xibaar yi ku ko daan joxe lu jinne yi yonent bi gën ñëpp bu mu moo tax mënuñu egg fa xaalu inna sami'na qur'aanan ajaba mm-hmm. mm-hmm. kon jinne nit da ko war a jox wàccuwaay bi mag bari waa na ñoo xam ne danaa wax jinne te giñ naa ko suñu tubaab ngelaw jinne bu leen sol bu leen jege woon rek ñu yàqu ñu pare billaahi lasi laa ilaaha illallah la ce que d'accord naa d'accord naa kon nañ jóge foofu léegi ñëw